président maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu itam kilifa yi nga àndal ñu kilifa yi réew mi ak kilifa yi nga àndal ñu toogal ci seenum réew yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu dina yëgal ne li nga wax ko bu baax a baax tàggu bi nga tàggoo di dem yëg nañu dina yëgal ne la liggéeyal nga réew mi ne kon yaa ngi wàcc réew mi gërëm na la waaye yow nag yaa leen war a gën a gërëm ngir réew mee la fal te wóoruñu la te far nañu la mu ñu la faru tën sab liggéey du rafet mu ñu la war sab liggéey du àgg kon nag ngërëm lu la réew mi gërëm yow ameel nga leen ngërëm lu ko mat ñetti yoon la fukk kon maa ngi lay ñaan nga delloo sa ngërëm yow ci nit ñi jërëjëf dégg ci taxawaay lépp lu nu ba toogee ba léegi lépp lu nu ma sa mu tàbbee ci sa nopp la ca war lépp def nga ko jërëjëf nga baal ma àq nag ma waxtaan ak bokki taalibe yi di sama bokki jullit jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen bokki juli ji nga xam ne noo bokk rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yéen bokki jullit yi nga xam ne noo alharam ينبك جلدينا حبنا تحيا الله دوا ولسينا آمنوا وحمدوا السالحات وآمنوا بما نشير على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ما نجلين دنون ما نجلين تسمى تسير تحواي بينير في تحو من ياري تحواي تحواي بمبدي غير مدلغ تحواي طيبي غير كيلي جيرو دون تيرو جيرو جيرو جيرو يالا نيالا بوري تمبدي تبولي رؤى بسم الله الرحمن الرحيم mu nu bàyyi ko ci jotaay bii yéen ñëpp am ngeen jaaraama yàlla defal aw gisu leen fa ngeen jëm ngeen ngeen ba yegg léegi nag am naa loo xam ne dama ko bëgg a waxtaan ak yéen ñëpp loola moo di yàlla dafa loo bind moom ba noppi nag teqi nu nun jullit ñi digal nu wut genn buum li kenn jël jox ñu ci ndigal بلدي كنا تبلوكو وجمعنا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى آه، درجي من در تبقى بوندياون سيتم وإنما المؤمنون إخوة من إنما الناس إخوة وأيوه فإنما المؤمنون إخوة الله من بوحي باطل فاستيبا بالسسل فأسلوا بين أخويكم فأسلوا بين أخويكم مودي بوكلن يوني بوكلن تخي بوكلن لجين أم لأننا نقول قد خيبا دل مداري أمل من ون yalla it mo andi min do digal yemono won modi ndax la won na seytaane bo seedum non ina seytaane lakum haduun digal mun no patta so wadu won digal ko mun digal no japp seytaane am non yaakaar na ne julit bu ne xam na ne lu ko naqari ci bof mu seytaane ko ko tek kon nak lolu lañu wax bi mu waxe lolu baagal nak dañuy jé lu bokk di genn jëm nak am na nak lo xam ne faaw ma wax ko yeen yalla modi mbolo mo gis lañu set lolay seen adina bala ñu koo mën a jëriñoo ndax ñu ko takkee ni aw say hmm, mbaa du ñu ko mën a jëriñoo loolu li ci firnde matt mi li muy bari bari ci àll bi dogal di buum di ko takk dara lu ñuy jëriñoo du ci mën a yegg ci kër gi danaa leen ko jox ci yeneen i misaal lu leen leer nañ ñu ba man koo xam loola moo di ku ci xëy suba toog ci sa téléphone yëkkati ko woo poste bi ginnaaw bu juróom ñetti waxtu jotee dana la wut te poste boo bëgg dana la ko jox ñooñu loolu la ñu seq yow ba ñu ko yow ba mu doon jënd buum moo waral ñu mën caa jëriñu mën caa jëriñu saxaar ci abraay rek lay jaar waaye boo demee ci gaar ñii saxaar ga nekk Tamba ak saxaar ga nekk feneen su saxaar avancé ba mu tardé fa boo ko laajee gaar ba ñu wax la ko loolu la ñu seq mooy suñu addina yow ba ko yow moo tax ñu mën koo jëriñoo mën caa jëriñu ci si bàyyi ko bërki dem ba faatu ñu di ko wax Pampaat xaw ma kanay doomam waaye ba muy dund nii saa boo soxla xam fu gerte boo ko téléphoné mu ne la gerte nga baraf sangam gerte nga baraf sangam nangam nangam la gerte sangam loolu loolu booba loolu la ñu seq yi loolaay seen addina moom la ñu seq yow nga ñu ko yow moo tax ñu mën caa jariñu mën caa jariñu kon nag ñun ñii itam nañ ñëw ci li ñu seq li ñu seq moo di diine lislaam ji nga xam ne yàlla nee na mooy diine fa moom ak réew mi nga xam ne dañu ci juddoo te jamononte loolu yaar la ñu seq kon nag loolu baleen jamono jariñoo lan dana koy takk di ëgg mu da mu mel ni aw say foofu nu ko ne ciib bu fa buntu war a ubbi ubbi loolu mooy li wér moom la war a def lu nu ko defee ba àggal nag dafa am lu war a sàmm ci biir loola moo di li yàlla digal mboolum jullit mu ànd loola loola loola moo di wa taxawanoo alal birri wa taqwa wala taxawanoo alal ismi wal udwaani di dimbalante ci aw yu ak lu jëm ci ragal yàlla te bañ a dimbalante ci bàkkaar ak lu jëm ci ak noonale loolu nag bu ñu ko defee noonu nga xam ne ne la ko yàlla waxee dana nu jural yett te yett yooyu lu ci dana nu jëriñ dana nu jural coxeelum yàlla dana nu jural yàlla garanti wu dana nu jural yàlla dox suñu diggante seytaane coxeelum yàlla gi mooy gan inna allaha yuhibbul lazina yuqaatiluuna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyaanun marsuus yàlla sopp na képp koo xam ne yaa ngi xeex ci aw yoonam def ay sappe mel ni euh, muur yi ñu taqale loolu kon wane na ne mbooloo mu ànd te nekk ci jub ñu ngi liggéey ci yoonu yàlla ana garanti bi mooy ban mooy wala ne jaal allahu lil kaafiriina alal mu'miniina sabiilan lan arafu dàqale bu ko yàlla waxee góor na ku nekk ne la mu dàqaloon du dellu si ana ni mu doxee suñu diggante seytaan itam li bu nu ko jëfee moo di inna ibaadi laysa laka alayhim sultaanu illaa man ittaba'aka mina al-ghaawina bu nu nekk ci biir liggéey ku bëttul ñett bi seytaan bi jotee yow dara kon nag dinaa génn jëmm lañ genn bopp lañ ma yëgal leen ni leen diw murit la diw xaadir la diw tiyaan la ñu ngi mel ni diw dafa xeex diw dafa ñuul diw dafa xeereer teew sa bokk ndey ak bàyyi te foo gisee ñett ñu bokk ndey ak bàyyi am te kenn ku gàddu ko bëgg caatam kenn dafa yëngu waaye mënu mënu ta fexe ba ñu tam te kenn te tabaadi wuñ ko ñett ñu bokk ndey ak bàyyi doon bi rek a liñ jur loolu na leen wóor ci kon nag li ma leen ci sant moo di saa bu ngeen gisatee kuy wax ci ab tijaan lu wër tey murit wala tijaan buy wax ci murit lu wër tey tijaan wala xaadir buy wax ci murit ak tijaan loo xam ne wëru la ma leen ci sant booba daal mooy li yàlla santaane def leen ko fa aril hanhum hatta yaqulu du'a li seen xayri loolaa leen sant def leen ko gannaaw bu loolu lu rek ma ñëw rek waxtaan ak yéen ci mbirum Sëñ Tuubaa itam Sëñ Tuubaa kuy wax ci moom loo war nga wax loo xam ne dëpp wut li ñu gënal ngir yàlla rek ko koy waral amutu la teel ba nga xam ci moom dara xeetam bañ laa xeeñ wa ilaa ngay koo xam ni ni ko yàlla def ñëw la yooyu yaar nag lenn lu am solo lu jaar na xaroo amu ci ngir moom contrat moom yàlla contrat bu fermé la lii kaana rabbi wa nabi kaana lii bi maamaha xëy bi aussi lii kaana lii nee na yàkkal yàlla nekkal na ko yonent bi nekkal na ko te ñu ngi ko nekkal ci luy far ay riibam di di di ñëwal mbóotam dellu na wax ni درجة تي تعلو وليس تنسفي سما درجة يكت كويتا دو سوفة ومن نها من الورا صفيق في توها من الدولنا سوفة سما درجة جديدة في يالا سوفة الله بوكم بيوم دو فترة ويوم لكي سابيرو بوكم عن وحلي تقول الله فإذا المعنجي واحدة ماني ماني رب فوجوه ماني دو سوزن درق ويا بقني ماني سيرا بوبو اللي جي بقين جي جي ماني بوبو سيبليرو وخط ينخمي دو مكان وفاكي جفنا اللي جي ماني ليجي man day maa ne fépp nga di ko yëpp sëñ Tuubaa rek laa fi nekkal jox naa ko sama dund jox naa ko sama dee jox naa ko sama yëngutu jox naa ko sama tay ni mu ko joxee Rasulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam dafa bind wax ne billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa hayaati wa mamaati harakaati wa sakaraati maa sayyidinaa Muhammadin sallallaahu alayhi wa sallam may dese naa ko noonu kon nag لمفينتهم تقلاشوا بسيري نكس لمفينتهم ولي نكل في يلا أدي يانا جلجي يلا يرم لين مو بندرين هود أمة المسحة أما يجبولهم هود أمة المسحة أن كل بصيرة عارة تاتو يانا تبتي جيب يق سلطان حميل خلخة يامن جدهم بدعا جيب الجليس يومين خيالي الأساس يمام يا الوحدة يا مالك الملك يا من جل أن خبري yow mi nga xamee yaay buuru buur yi xam jami al wara yërëmal boole bindee bi yaa yaa haadi nga daa loolu nag dafay waral bu fekkente ne aw ma aw ma daraja di laaj yàlla mu yërëm bindee fi dana am ful bu day nañ képp ku yërëm bindee fi di leen dimbali mooy wax ak yow di def ak yow ku ku defut loola ma bañ a jotee yow dara feeg maa di dund jërëjëf jëf loolu rek laa bëggoon a wax président maa ngi lay nuyu